asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ginnaaw bu ñu santee yàlla dama bëggoon njëkk nuyu suma xarit suma sëriñ euh, dina ko firndeel léegi muy sëriñ abib Babacar si di ko sant bu baax a baax. Euh, comme niñ ko waxee léegi si njalbeen bi ànd naa fi ak délégation nga xam ne nag dañu wax ne délégation bu restreinte la xam nga yoon yi dafa xat lool euh, ñëpp bëggoon nañu ñëw maanaam conseil économique et social yëpp waaye nag euh, ma xalaat yoon bi nu mu xatee ma xool daal ñi nga xam ne ñoo fi mënul ñàkk teew ma tànn leen ñu gunge ma. foog naa ne lim nañu ñëpp amul kenn bu ñu si fàtte xanaa léegi Ousmane wax nañu ko sinon ah xanaa notre frère la mooy s'appelle encore Ousmane Mbow mooy moom si kër gi la nekk moom wala mu ngoog ak suma rap bokk nag mooy euh, Moustapha Ndiaye baax na si parce que kii moom suma xaritu dëgg la euh, sant yàlla euh, Serigne Abim mi. bu ma ko xamee léegi mu mot ñaari fukki at 2004 man nag euh, le ministre Matar Cissé ñoo ñoo nekkoon voisin mariste yàlla may ñu à chaque fois suñu amoon maanaam euh, weeru koor moom mi moo doon ñëw di ñu dimbali di ñu di ñu di di ñu jàngal di ñu di ñu di foofu en même temps surtout euh, di ñu di ñu jiite si julli ji moom Serigne Habib mi 2004 xam nga loolu moom léegi bëri na bientôt vingt ans euh, loolu nag ma sante ko yàlla bu baax a baax parce que mus naa ko wax fii si benn manifestation euh, man taalibe Tidiane dama doon gunge fii suma pap Euh, ñu ñëw si burdu yi wax naa ko suñu ñëwoon léeg-léeg dañu doon toog ay cinq cent mètres sëriñ yi ñu leen di seetlu fële ma gis sama papa à chaque fois su su télévision bi génnee kenn si ñoom rek ma dëgg mu naan ndeysaan c'est d'ici très loin ñu sore lool ah yàlla nag dimbali ma ba ma ñëw bokk ak ñoom jotaay yu mel ni yàlla may ma pendant près presque cinq ans may jiite fii cérémonie officielle mm-hmm. aujourd'hui it xam naa ne lu dul li nga xam ne si kattanu yàlla président de la république Macky Sall ma koy sant bu baax a baax mooy li ma dënk mm-hmm. amaana lu mel ni du yomb mm-hmm. c'est vrai que am naa chance suñu colère la suma xarit la suma sëriñ la mun naa am lu mel noonu mais ñoom fii di représenter benn institution ah kooku nag Macky Sall laa koy sant ginnaaw yàlla maa koy sant bu baax a baax si loolu ah su ma yàlla mayee nag ma ñëw ba bokk ak ñoom jotaay ñoom si si jotaay yu mel nii ah wax dëgg yàlla man mi tijjaan moom doomu Alaaji Daawuda dama koy sant yàlla bu baax a baax te xam naa ni góor gi fu ma tëdd ah ragal naa ni daal mun naa sedd na que moom kontaan na si lool ñu sante ko yàlla bu baax a baax Ah, di di nuy sëriñ bi nag suñu pàpp mooy ku ñu bokk xam nga ko. Mm-hmm. xam nga suñu relation. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne aussi def ma boole si lépp. moom mooy ñaanal. mu may tette mu may jàppale si fànn bu nekk. Mm-hmm. ma koy ñaanal wér. yal na ko yàlla yàggal suñu kanam. yàlla may ko wér bu baax a baax. ah dañ fi ñëw tey nag. Ah, di bokk rek li nga xam ne ñoo ko bokk. muy suñu gamu gi. di leen si ndokkale si mm-hmm. di ndokkale waa Tiwaawoon yëpp nag si gamu bi surtout di ko ndokkale maanaam mm-hmm. umma islamique bi ak surtout tijaan yëpp mm-hmm. ah, ñu sante ko yàlla rek bu baax a baax loolu daal moo doon tànk yi xam naa du ma si gudd parce que lii moom laa bu dañu def ko rek ah su ma yàlla mayoon sax man li ma doon ñaan à chaque fois mooy ñëw te burdu yi mais xam nga xat-xat àdduna fu mu toll ak liggéeyu jàmbur aussi ñu dënk la ko mm-hmm. euh, loolu peut-être dina métti mm-hmm. mais en tout cas na nga xam ne daal man nit si la bokk dama ñëw nag indi manifestation boobu man nag yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi mm-hmm. ñoo mit ñi sawar si lool parce que bu ñu ko jàppee dëmb rek la woon parce que ñoo ngi doon nangu du président pour mu revenir ah ba tey nag ma xalaat ni mu xaw xat tuuti loolu tax ma ne daal nañu ma gunge euh, ma maanaam yëgali farata boobu ànd ak délégation bi nga xam ne lim nañu ko léegi. di leen siyaar rek di mm. bokk ak yéen bis bi. Mm. te man ñaan yàlla yal na ñu ko yàlla mooy ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri bëri bëri. ah di leen sakku ñaan nag. Mm-hmm. si réew mi mm-hmm. ah jàmm réew mi mm-hmm. naat réew mi dal réew mi. surtout aussi si nawet bii nga xam ne ñoo si nekk. yàlla may ñu mu nekk nawet barke lool lool lool lool. ah ñaan baa ngi si xam naa ko mun ngeen ko lu ñu dénkaat leen loolu loolu daal moo doon kaddu yi di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah fii ànd président ànd ak président nuyu nañ ma fii nuyu nañ ma fii ñu bokk waxtaan ñu bokk waxtaan bu ko wóoluwul woon bu ko wóoluwul woon ñi muy àndal ñi muy àndal du ci bokk du ci bokk mhm. te ba léegi tàqalikoowu leen. te que ba léegi tàqalikoowu leen. yal na la yàlla suturaal. yal na la yàlla suturaal. mi ngi denc sëtu shérif Yunus. mi ngi denc sëtu shérif Yunus. Hmm? di taxawu sunu baay Cheikh Ahmed Tidiane Aydara bu baax. di taxawu sunu baay sunu xarit sunu soppe Cheikh Ahmed Tidiane Aydara bu baax. di xalifa Cherif Bachir. tey ci jamono di xalifa Cherif tey ci jamono. te dundam yëpp. te dundam yëpp. fii la ko paase. fii la ko paase moom. moom wax na ma ne ma. moom wax na ko ni ko. ni Abdoulaye di toppatoo famille. ni Abdoulaye di toppatoo famille. te bu yaatalul woon. te bu yaatalul woon. mën naa bañ a yaatu. mën naa bañ a yaatu. waaye xatalul. loolu. loolu na nga ma ko seedeel sëriñ bi na ma ko seedeel sëriñ bi. yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay. fi may daaneele. nee fi muy daaneele nag. ñaar rek seq nit. ñaar rek a seq nit. bëgg dimbale sa bopp. bëgg dimbale sa bopp. bëgg yàlla dimbale la bëgg yàlla dimbale la. ku bëgg a dimbale sa bopp. ku bëgg a nag sa bopp. sonnal ci say bokk. sonnal ci say bokk. ñu waxal la yàlla. ñu waxal la yàlla. loo mënul waxal sa bopp. loo mënul la waxal sa bopp. bëgg ndimbal ci yàlla. ku bëgg ndimbal ci yàlla. sonnal ci nit ñi. sonnal ci nit ñi. nit ñi waxal la yàlla. nit ñi waxal la yàlla. loo mënul wax yàlla. loo mënul wax yàlla. Euh, déggal euh, wax jàmm. yal na yàlla dolli sa sutura. yal na yàlla dolli sa sutura. yàlla bu mu nekk sunu mujj gisee. amiin yàlla bu mu nekk sunu mujj gisee. gàmm gi ñu jëm. gàmm gi ñu jëm. bésu rasulullahi. bésu rasulullahi la. guddi rasulullahi. guddi rasulullahi la. maam Seydou El Hadj Malick. maam Seydou El Hadj Malick. dimbale nañu. dimbale nañu. tekki nanu tekki nañu yee nañu yee nañu yeewi nañu yeewi nañu ba kenn ku ci ba kenn ku ci bàyyi na laak sa bopp bàyyi na laak sa bopp ba nga yëg ni ba nga yëg ni yàlla yàlla mooy yàlla mooy yàlla yow nag yow nag yaay yow yow yow kon jàllo kon jàllo li ngeen yéene ci réew mi li ngeen yéene ci réew mi. yéene ko ci jaamu yàlla yi. yéene ko ci jaamu yàlla yi. ko ci seen bopp. yéene ko ci seen bopp. yal na leen ci yàlla defal. yal na leen ci yàlla defal. lu kawe seen njort lu kawe seen njort. ci barke borom guddi gi ci barke borom guddi gi. barke borom bés yu tedd bi barke borom bés yu tedd bi. barke xalifa bi barke xalifa bi. mooy kaddu yi nga mooy kaddu yi nga xam ni. jéem nañ ci jéem nañ ci. sunu kemtalaayal kattan sunu kemtalaayal kattan. ànd koog sunu mag. ànd koog sunu mag. doomu sëriñ bi doomu sëriñ bi. di jarbaatam di jarbaatam. alxaaji Yusufa Jóob Diop fu Serigne Babacar Sy mës a tukkee Europe. fu Serigne Babacar Sy mës a mm. tukkee Europe. li muy jëkk a def. li muy jëkk a def. dem ba ca ambassade. dem ba ca ambassade. muy ambassadeur ba. muy ambassadeur ba. muy consul ba muy consul ne leen ne leen. fii ku fi ñëw fii ku fi ñëw. du ma xaar du ma xaar. ñu xam ndax ñëw naa fi. ñu xam ndax ñëw naa fi. maay yóbbu sama bopp maay ñëwal sama bopp. yëglu yëglu. ba ñu xam ni ba ñu xam ni maa ngi fi maa ngi fi. waaye ci biir yooyu yëpp. waaye ci biir yooyu yëpp nag. dafa am <clears throat> benn cas bu dafa am cas benn kaabu bu particulier. sarak sarak. Hmm. sa xarit sa sa soppe sa soppe. ca Paris ah, fu sëriñ bi tege tànkam sëriñ bi tege tànkam. li muy njëkk a def li muy njëkk a def. mooy seeti ko mooy seeti ko. Hmm. waxtaan ak moom waxtaan ak moom. déeyoo ak moom. wax ko li ko fi indi. wax ko li ko fi indi. moom it moom it. mu wax ko la nga xam ni. mu wax ko la nga xam ni. ma nga fa ma nga fa. te bu ci dugalee loxo. te bu ci dugalee loxo. yàlla def ci sutura yàlla def ci sutura. teraanga boobu nag teraanga boobu nag. ba mu koy def ba mu koy def. yaa nga ca biir yaa nga ca biir. Mm, jërëjëf Diallo barakallahu jërëjëf Diallo yàlla fay yal na leen yàlla fay barke barke ba sa baay daan fittasu ba sa baay saan daan fittasu banaan Seydi Si banaan Seydi Si du woon fanatisme de du woon fanatisme de bari na ko tëdd ci néegam. bari na ko tëdd ci néegam. di xaran guddi. di xaran guddi. yeewu. yeewu biddanti biddanti. wuti wuti am am. dafa ni njàmbaaram la dafa ni njàmbaaram la. njàngam la wala njàngam déedéet ba muy nelaw ba muy nelaw. mag ma fanaan ca biti. mag ma fanaan ca biti. moo ko dagaanal moo ko dagaanal. allahu akbar. kenn ku ci nekk tey. ndax fii mu ne kenn ku ci nekk tey. boo déduire say at. boo déduire say at. ci say atu baay. ci say atu baay. la ngay dese. la ngay dese. ba ko sa papa di am newoo fi. ba ko sa papa di am newoo fi. te kenn ku ci nekk yëg nga ni te kenn ku ci nekk yëg nga ni âge bii nga am âge bii nga am ba ko sa papa di am ba ko sa papa di am lal bi ngay tëdd tey bi ngay tëdd tey amu ko woon amu ko woon waaw ceeb bi ngay lekk ceeb bi ngay lekk amu ko woon amu ko woon lu tuuti la amoon lu tuuti la amoon. programme de vie. programme de vie. bu génnul ñett bu génnul ñett. anamu anamu ma nga kër ga. ma kër ga nekku fa. nekku fa ma nga jàkka ja nga jàkka ja nekku fa. nekku fa ma nga place ma nga place di tuur ñaqam di tuur ñaqam. bu amee bu amee indi ci njaboot indi ci njaboot bu génnee bu génnee jaamu ji yàlla jaamu ji yàlla. jur la ci jur la ci. ci doylu ci doylu. ci maandu ci maandu. di la ci faj di la ci faj. yar la ci yar la ci. ba nga gore ba nga gore. màgg màgg. melokaan boobu. melokaan boobu. boo ko doon évalué ci biir jamono boo ko doon ci biir jamono. mooy précarité. mooy précarité. dëkk dëkk ci këru baraak. dëkk ci këru baraak. amul buntu kër. amul buntu kër. benn ndab. benn ndab takk ñeenti jabar. takk ñeenti jabar. kenn du werante. kenn du werante. kenn xamul kuy mag. kenn xamul kuy mag. kenn xamul kuy dëkkandoo. kenn xamul kuy dëkkandoo. ku dugg ku dugg. bokk nga. bokk nga benn baraada. ataaya benn baraada ñëpp di ko bokk ñëpp di ko bokk. jël buntu kër. jël buntu kër. teg fële. teg fa amul samp bañ ngàcce. samp bañ ngàcce. moo tax cadeau bi gën a ultime. mooy tax cadeau bi gën ci dundu nit ci dundu mooy woy jur mooy woy jur. kenn sa kenn fagguwul ko sa bopp. kenn fagguwul ko sa bopp. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. ba nga am ba di ko naw. ba nga am ba di naw. yàllaa la ko jox la ko jox. kon. kon. seet fooy teg sa wéyjur waaye seet fooy teg sa wéyjur. yàlla sant ko kenn. yàlla sant ko kenn de. xam fu la yàlla tegal sa wéyjur. xam fu la yàlla tegal sa wéyjur. moo gën moo gën. xam fooy teg sa wéyjur xam fooy teg sa wéyjur. asalaamaaleykum wa rahmatulah.